Aïdara téeméer ak fanweer ak benn ko wootewu Seydina Limaamu Laay almahdiwu jàpp leen ne kon cérémonie officielle bi tey jile la ñu ko jàpp ci dimanche ji xalif généralu Laayeen yi nag woote na kon ngir jàmm mën a dellu waaye it danañ leen defal daal ab reportage wu yaataw yaatu ci la ilaha illa laaj yeeg na ko Laayeen yooyee kon di jëfandikoo ci geneen ak wàll ci diwaanu ko sigi coor moom ab musiba mbaaba kumba moom moo fa daal di am ab gone tuutànk goo xam lay toll moom daal moo doon dox ci ay jàng ba ne sërëx daanu kon ci am foos lii nag di sapeur pompier yi kon ña nga woon ci liggéey boobee te diwaanu ko Mbacke Bawol tamit ab musiba mbaaba kumba moo am ci genn ko gox woo xam ne digganteem ak Mbacke fukk ak juróom-ñett ci ay kilomètres lay tollu ngelaw la ak ndox ma daal moo jëlaa ñoo ba daal di faxas nag maanaam arduwaas ak seng ak sàkket sa ba tax na am nañu ci bare bari euh, noonee la ñu jàkkaarloo kon ak weer wi maanaam amuñu woon am xëdd daal te noonee la ñu daal di kon a fanaan suñu réew mi nag ak nañu ko caxat caxatee la république abîmée di livre bu bees yu nga xam ne kon Abdoulatif Coulibaly journaliste bind na ko danañu ko présenté nag lii di maanaam uh, waa Ndar ca ak xool nees def kon ba réew mi nga xam ne ci suux la jëm ñu génnee ko ca. Uh, convergence libérale di ab kuréel boo xam ne waa parti démocratique sénégalais ñoom ñoo fa ne ñoom nag jàpp nañu ne doxu ñaxtu yeeg taal ki nga xam ne moom la ñu nimi koog wàllu la xawante assemblée nationale loolee lépp kenn ku dul. opposition bi ci diwaanu Fatick moom ñi ànd maire bu Thiès di Idrissa Seck ñoom nag ñoo fa taxawal daal ab kuréel sa gox ba ab front régional ngir nag euh, jàkkaarloo daal ak candidature Abdoulaye Wade gi nees def bu mu ne Abdoulaye Wade kon dem yoonam ci nu mu gën a gaawee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diop moo nekk ca xarale mbokk yi asalaamaaleykum téeméer ak fanweer ak benneelu appeluk Seydina Limaamu Laay El Mahdiou ña nga ca niki kon démb la door cérémonie officielle ba tey jëlee kon ci dimanche ji la ko jàpp mbir mu ni mel nag euh, tax na daal ba lii di xalif général ba ca boppam yëkkati ay kàddoom niki démb woo kon askanuk Sénégal képp ngir jàmm kon a euh, gën a mën a dellu si ci bërëb euh, boobe ci génneenu ko wàll ba léegi ni le ñu dem nag ci laayeen yooyu ba tey def ci ab reportage wu yaataw yaatu laa ilaha illallah ja ak na ko suñ mbokk laayeen yi kon di jëfandikoo nekk loo xam ne daal maanaam yaram da ciy faral di daw lal ko nag ci ay julli ak i ñaan yu bëree bari ak yu bokkul soxna Mantouré ñam Seydina Limaamu leen laa ilaha illallah mooy caabi moo war ubbi bunt. Seydina Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jullit yi dañ koy faral di wax saay bu ñu déggee kàddu googule di laa ilaha illallah rawatina rek laayeen yi nga xam ne ñoom saa su ne dañu kaa wax pour wax li nekk seen biir xol su fekkee ne da dégg kaa waxe nii la ilaha illallah la la ilaha xam leen rek léegi julli jot bu ñuy waajal a julli la ilaha ñu bari dañuy wax ni boo dee julli boo demee bay taaya na nga dàq seytaane Seydina Limaamu ne déet loolu wóorul seytaane danga koy dàq balaa ngay janoog sa borom donc moom dafa ne balaa ngeen di julli jël leen 15 à 20 minutes ngeen sikkar bu fort parce que ñëpp d'accord nañ ni laay laay la fu mu jub rek seytaane day daw. ki ñu tojal yax wi di libaas aan benn taalibe la su fekkee ne nag naqar moo am. allah da ngay yëg bi. bu fekkee ne dañu nekk ci naqar maanaam dafa am ku dëdd mu ne bu leen jooy seen néew ngir di tuur ay rangooñ jooy leen ko ci baatu laa ilaha illallah ndax baatu laa ilaha illallah lu mu mënul faj am donc bu boobaa gars yi dañuy toog bon oraison funèbre li tubaab di wax oraison funèbre mooy maanaam ñun bu ñuy gungee suñu néew sikaru waajal julli boobu buñ koy sang sax moom lañuy ñuy sikar bu ñu sikkaree ba nga xamante ne sang nañ ba solal ba teg ci jaan bi ba yëkkati nag oraison funèbre day jóg. waaw bu mbégte ñëwee nag. laay laay laaw laay laay laaw laay laay laaw mu mel ni ci kaw ak ci suuf ci biti ci biti lépp laa ilaha illallah moo ko ëmb li war rek ñoom ci seen gis-gis li war moo ñu kaa wax saa su ne ak fu ñu munti ne ndax kat loolu mooy tax. ñu texee ak bépp métit ñu mën kaa supporter ba di dund nu mu leen neexee jërëjëf kon euh, soxna Man Touré ñu àddu kon jëmale nag ci wàllub nawet bi lay waaye juróomi minute moo lalu kon ci juróom-ñetti waxtu. ak RFM. tàggoog nag yéen nawet boobee ca duwaanuk si sigi coor di si sigeen soor jàppaleen ne musiba mbaa ba kumba kon dëgg la fa def ab gone goo xam ne gu góor la fi mu nekk nii daal daa réer ne may njortees nañ ne nag ca am foos daal la daal di kon dugg ndox may waral kon lu ni mel juróom-ñetti at la xale boobee di am sapeur pompier ñoom ña nga woon ca wër ga ba biik maanaam démb ci guddi Abdoulaye Samb actrice moom la ñu nemeeku ci quartier Kajoor fii ci Ziguinchor benn xale am juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti at doon jógee ci benn dara moom moo daanu ci caniveau waxtu bi nga xamante ne mu ngi doon taw taw bu métti fii ci Ziguinchor ba tax na nag ndox mi moom moo ko yóbbaale Ibou Guèye tend la ci ndaw bokk foofu ci quartier Kajoor fekkee na mbir mi. vraiment dinañ ñu xew ni pratiquement ñun ñëpp ko bokk na xam taw bi nag dem mu doon taw dafa fooroon lool. ndox mi dem na ba muur caniveau bi dem mu dem ba muur caniveau bi xale bi dafa jógee alxuraan doon ñibbi mokk rakk ci rakk ji jot na jàll mag ji di dem di jàll moom mu diig moom moo jot des si biir caniveau bi balaa nit ñi di daw si jeunes yi fii pour secourir ko fekk dugg na nag ci caniveau yoo xam ne moom ne nu muur mu nekkoon lu métti lool finalement ñun def na lu nu mën mënuñu kii ba sappoor ñëw depuis léegi soo seetee daanaka def na presque ñaari waxtu ñu ngi nii di seet xale bi ba léegi na ko donc métti na trop donte farlu ndaw yi ak sappoor pompier yi nga xamante ne daw nañu yegg si ci bërëb ba ginnaaw bu ñu utee xale bi ci boobu canal lu war a toll ñaari waxtu terewul nag xale bi ba léegi kenn gisu ko bu fekkente ne ndaw yi nag ñoom nee nañu curage caniveau yi nga xamante ne amal nañ ko foofu baaxul dara wante lu ñu mën a jàpp moo di période nawet bi faaw parents yi gën a assuré. <laughs> surveillance seen i doom ci nawet bi ñu nekk Abdoulaye Samb Ziguinchor RFM. jërëjëf kon Abdoulaye ñu dem ci diwaana gu Mbacke digg euh, gox bi kon ñu naan euh, Ndiombane foofee nag jàppale ne digganteem ak euh, Mbacke lu ci tolloog fukk juróom jàpp kon fukk ak juróom-ñett ci ay moom moo ci dox ab taw waa ànd ak ngelaw woo xam ne nag lam fa yàq kon bëri na ndaxte luy nuru xëdd daal mbiruma kon naawal na ko di arduwa saki seng wala boog ay sàkket am na ci ñu ci bare bare kon ca mbedd ma la ñu fanaan noonu Abdoulaye Fam taw day am nañ habitude di wax naan jàmm lay indi waaye taw bi nga xam ne nag moom moo wàcc samedi ji ci njumaan moom day fitna ak njàqare ak tiis la leen bàyyee njumaan di dëkk bi nga xam ne moom mooy chef lieu de communauté rurale bu même dëkk bi ci département wu Mbacké moom kat ngelaw li nga xam ne moom moo fa jaar dina néeg ya fa nekk yëpp taw bi nag mu ngi wàcc ci dëkk boobu boobule ginnaaw bi ñu julee tàkkusaan ba noppi amul benn nag kër goo xam ne ngelaw li bàyyi na la fa tax nag ay njaboot yu bëri nar a fanaan ci biti benn jàkka ji nga xam ne moom moo nekkoon ca dëkk ba dina toogi ay fan yoo xam ne kenn du fa julli yemu fa jiw bi nga xam ne moom lañ stocké woon ci biir angaar bi di xaar ñu séddale ko seeni woroom moom it taw ba jaar na fa yàqate ko ba mu yàqu Abdoulaye RFM. jërëjëf kon Abdoulaye fa nga xam ne nag maanaam moom mooy vallée ba jàpp leen na fi mu nekk nii le nawet bi daal njortees nañ ne dugub bi dana bari lool ñi nga xam ne nag ñoo ko xam le rek moom mooy direction régionale du développement rural bu Matam googee ñoom nag fa ñu sukkandiku ba wax lu ni mel mooy jumtukaay yi nga xam ne kon dikk na fa di wàllum matériel agricole waaye lu jëm ci wàllum subvention euh, ci wàllum jiwu goog yooyee foofee la ñuy sukkandiku Abdoulaye euh, Ali Bandel ñoom ah, ak jumtuwaay yi te Sénégal jagleel réewum Sénégal ren tax na ba béykatu diwaanu Matam daal di teel noppi liggéey bi ñeel defaraat seen tool jéeri yi jamono yi ci diwaanu Matam mboolem ñi yëngu ci wàllu mbéyum dugub noppi nañu ndexaaruñu lenn lu dul pokk ndox laal suuf ngir kon ñu daal di jiw gannaaw nag kilifay sayet bi fi doon amalab tukki ñi bokk ci développement rural bu Matam kat gis nañ ni ngëneel mu ñeel phosphate granulé yi nga xam ne fii ci diwaanu Matam lañ koy defaree ñu jagleel ko bay baykat yi njiitalu développement rural bu diwaanu Matam kon am yaakaar bu rëy lool ne kon mu ngay sukkandikoo ci prévision météorologique yi annoncé ndox mu taw bu bëri te barkeel Youssouf Gueye mooy directeur développement rural fii ci Matam. météo seen prévision mooy pour taw bi day doon année normale à tendance excédentaire maintenant si mbirum semence bi mu nekk ni gouvernement bi commencé na mettre ay semences subventionnées au niveau de la région de Matam engrais atteindre sécurité alimentaire dundal waa Matam waa Sénégal et puis penser à l'exportation il nee nu ay motoculteurs nu ay fausseuses andil nu ay polisseurs à riz fi mu ne nii ñun ci gouvernement bi dañuy distribuer phosphate de Matam yi producteurs yi INP Institut de pédologie am nañu phosphate bu ñu jot bu bari te fi mu ne nii commencé nañ ko distribuer producteurs yi pour ñu def phosphatage de fond baykat yi nekk ci diwaanu Matam gannaaw bi ñuy noppee ci waajtaayu campagne wu nawet gi ñu ngi dundee yaakaar bu rëy lool waaye leader paysan yi ñu ngay saxuwaat ci kilifa yi tey sa Sénégal ngir mu yabal matériel agricole bi des bi ñu yaakaar ni moo gën am solo ngir ñu mun leen yombal campagne nawet gi ñu ne yaakaar gu réy lañ ci teg mu ne kon seen naataango Ali Bandel ñaa fu ci kon Bandel ñaar ci ay usines yoo xam ne nag maanaam wàllum transformation ci mbirum tamaate ji daal danañu ko taxawal fii ak juróom-benn ci ay weer loolee nag ki ko xam ne mooy directeur yi nga xam ne moo leen dénk lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaay ci biir réew daal di kon yëkkati kàddu yooyu xam ne ne sax danañu fi taxawal geneenug réseau goo xam ne kon commerçant yi nees def rek boo indi kon wàllum suqalim ci mbirum euh, koom-koom géew dundinug askan wi le moom Alioune Diouf moomee la ñuy daal di ma ak commercial Sénégal dafa di politique boo xam ne fi mu ne li ñu ci jublu mooy dañoo bëgg Sénégal nekk acteur bu mag ci Afrique am na commerçant ambulant am na commerçant tablier te ñooñu bu ñu leen organisé wul mën nañoo yàq liggéeyu commerçant yi maanaam Sandaga bu nit ñëwee taxaw sa kanamu boutique ba fatt la ba kenn du mën a accéder sa boutique xam nga kooku mi ngi yàq sa liggéey kon nag ñooñu nga xam ne ñoom it dañoo bëgg a liggéey organisme commercial day politique boo xam ne dañ ko taxawal pour mën a créer ay marché yu bees pour mën a fexe ba marché yi mën a am ay jumtukaay yoo xam ne dana permettre nga denc fa nga jaay fa ci anam yu aw yoon loolu moo tax commercant yi ñu ñaan ñu ànd ak état bi pour ñu développer politique yooyu bu ñu sañoon domaine boo gis rek dana am ñaari industrie wala ñetti industrie ci wàllu tamaate nag Sénégal dafa def loo xam ni tamaate bi ñuy defar Sénégal daanaka bariwul ñu koy defar ci monde bi tamaate boo xam ne amul xorom amul lenn luy niru xeetu li koy jox couleur lu koy xonqal wala yu mel noonu loolu Sénégal rek la am ñu bëgg tam mu am ñetti usines yoo xam ñëpp dañ ciy jàpp ba xam ne képp ku bay sa tamaate li nga mën a am kenn ñaar ba ñett nit ñoo xam ne mën nga leen koo jaay loolu mooy jëmale kanam réew maanaam li ngay bay dangay fexe ba loolu yow nga transformé ko pour mën koo jariñoo moo gën rek nga bay ko rek daal di ko sànni noonu wala nga yóbbu ko noonu bitim réew ñoom ñu transformé ko indiwaat la di ko jaay loolu tax ñu encouragé politique de transformation et de valorisation maanaam li ñuy bay te di ko lekk ñu fexe ba ñun ñu di ko transformé seen syndicat gi nga xam ni moo njabootee ñiy yëngu kon ci wàllu yoon di mbirum justice ñoom nag ci altine jële kon dañu daje ak ministre de la justice di Cheikh Tidiane euh, ginnaaw nag euh, ab euh, dox jàmm goo xam ne ordre des avocats doon nañu ko def audience boobee nag jàppale ne fi mu nekk ni li dikk ne nag ci jamono joo xam ni am na ñoo xam ni ci waa sud juste googee ronqe woon nañ ab lëf ci seenuk salaire ginnaaw nag ba ñu nekkee daal ci am yënga-yëngal di p gereew Euh, ci geneenu wàll nag mooy ne suñu république bi ak ni ñu ko def mooy livre ko Abdou Latif Coulibaly bii mu dippee kon la république abîmée livre boobee nag nga xam ne Abdou Latif Coulibaly bind na ko danañu ko présenté kon waa Ndar Géej ngir nag waxtaanee rek nees def kon ba xool maanaam nu ñuy def kon nag ba euh, jàmm mën a dellu kon ci suñu dëkk bile Mouhamed euh, Nabi Silla ñu àddu kon jëmale nag ci ginnaaw manifester yi nga xam ne kon amoon nañu fi ci fan yee ñu génn ñaar fukki fan ak jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru convergence libérale moom nag jàpp na ne luy njiig rek opposition bi ci boppam moom mooy njaak kii di Samba Diaw moom nag doon na ca jàkkaarloo kon ak taskatu xabaar yi la al Ousseynou Diagne yëngu-yëngal yu amoon ñaari fukki fan ak ñaari fukki fan ak juróom ci weeri juin bi ñu génn loolu nag lu dul kenn ku ko soxee di opposition bi bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur convergence libérale Samba Diaw ne ñoom kat ñooy responsable te ñoom ñoo manipuler ndaw yi. kon kay nañ nangu lépp li fa am te lépp fa lépp am ñoo ko wund ñoo ko sooxe lakk ga ñoo wax gone yi ñu lakk. lakk yàq kër jàmbur yi ñoo wax ñu dem lakk kër jàmbur yi kër gu nekk ñu ne diw fële la dëkk dama lakk ko mairie baa nga fële dama lakk ko. Samba Diaw gis ne opposition moom dafa amul benn programme ngir loo xam ne daal mën nañ ko méngale wala mën a wut lu Abdoulaye Wade di proposé ma tax muy woo nit ñi ci ab violence te tax di continuer di def pression ci conseil constitutionnel. te yoo tàngal dëkk bi wax nit ñi def pression ba Abdoulaye Wade 2012. bu mu bu mu euh, conseil constitutionnel conseil constitutionnel bu mu nangu ne Ablaye Wade dana bokk si ñuy mbër yi jongante élection yi di ñëw loolu c'est déloyal. loolu moom liggéey pour mudul antu la ndax kat Samba Diaw ak structure am nee nañu ñoom ñi di xam ne ñooy jàppale candidature Abdoulaye Wade ci élection présidentielle 2012 daañu taxaw temm ngir jàkkaarloo ak ñoom loolu yëpp nag ngir aar Sénégal mu taal di si teg. Euh, ca diwaanu Fatick moom ñi nga xam ne ñoo àndee ak Idrissa Seck ñoom na taxawal nañ fa benn kuréel foofee kon front régional ngir nag jàkkaarloo rek ak candidature Abdoulaye Wade bi la ci 2012 ñoom daal lañuy sàkk sàkku fi mu nekk ni le mooy Karim Wade moomee dem génn ci gouvernement bi complètement waaye bàyyi bi it bu mu sampaat ndëndëm ci élection présidentielle Matar Diatta mile Matar Diattara kon maanaam moom moo seenu ko moo jiite kon kuréel googee ñu déglu ko Youssouf Bodian dafay nekk kuréel goo xam ne dafa fas yéene dajale képp koo xam ne citoyen dëkk Fatick képp koo xamante ni nii signé nga li nga xamante ni nii moo di pétition bi nga xam ne bëgg nañ koo def ngir taxawal front boobu da nga fa teew ndax loolu bokk na ci yoon wi nga xam ne fa lañ bëgg a jaar ba def fi front régional maanaam dinañ bind ay këyit yoo xam ne dinañ ko jox képp koo xamante ni jàpp nañu citoyen sénégalais ñu ne la kat ñun bëggatuñu Ablaye Wade toog fa te bëggatuñu Ablaye Wade def candidature am 2012 ah, bëggatuñu Karim nekk fi ndax jox nañ ko alal réew mi te amul lenn loo xam ne gis nañ ko ci problème yi nga xam ne Senelec ñu koy dund ba problème yi nga xamante nii jëm na ci wàllu courant kon moom bëggatuñu ñu jox ko benn pouvoir boo xam ne ci gouvernement bi la nekk fas yéene nañu am li nga xam ne moo di délégation spéciale yi maanaam gox yi ak goxaat yi nga xamante ni population yi tànnoon na ay ni teg leen fa Ablaye Wade di ko foqal loolu luy war a dakkal donc ku kër koo xam ne nangu ci ñoom dangay ngay signé loolu su ko defee nag bu nee ba ca kanam ñu taxawal benn ndaje moo xam ndaje bu mag lay doon fas yéene def benn marche wane ne Fatick kat ñii la takkoo kon jàpp nañ ne buñ dajee ci loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ko war a xeexandoo kon am nañ kuréel goo xam ne dañ ci mën a waxtaan ci loolu li ñu bëgg mooy bu ñu dajee waxtaan waxtaanee problème boo xamante ni problème Fatick la hôpital yi chantier de Fatick ak lépp te lépp loo xam ne war na ak takku war na taxaw war na ab xeex boo xam ne war nañ ko ci def danañ ko ci def ngir chantier de Fatick yi moom ñu yeggali ko dañoo bëgg woon daal ci xeex bi nga xam ne Sénégal fas nañ koo xeex ñun région de Fatick duñ ci des gannaaw. mbokk yi kon moo fàttali leen la gënoon a fees laataa nag Cheikh Tidiane Diagne kon di dikk nag ci week